tey ñu ñëwoon tey pour defar euh, li ñuy tuddee évaluation préparation màggal bu Kazu Rajab nga xamee ne ñoo ko prévoir le 17 février euh, muy ajuma li nga xamee ne que mooy li ñëw incha allah mu nekk événement bu mag ba nga xamee ne moom na ñuy préparé nga xamee ne euh, réew mi yëpp dinañ fii mën a yëgse si mbirum taalibe yi mu laaj nag participation acteurs yëpp notamment acteur administration mais également yeneen acteurs yi nga xamee ne que ñoom ñoo nekk si dëkk bi ñu defoon nag si bi ñuy préparer événement bi ñu def si li ñuy tuddee benn CLD nga xamee ne sous-préfet moom moo ko piloté ak beneen réunion ba nga xamee ne amee na fële sa Diourbel muy euh, CRD nga xamee ne gouverneur de la région moom moo ko jiite woon ci biir loolu mu amoon ay ya nga xamee ne que comité d'organisation bi laajoon na ko pour mën a euh, bés bi mais également ay engagement ya nga xam ne service yi maanaam service technique yi jëloon nañ ko pour vraiment ni ñuy participer ci euh, bés bi ñu man si gis si euh, secteur santé euh, lépp li nga xamee ne que mooy point mobile avancé euh, mais également lépp la nga xamee ne que si wàllum médicament wala personnel ñoom par rapport ak engagement yi ñu jëloon yëpp dinañ ko mën a def mettre en œuvre également avec la participation de la Croix-Rouge nga xamee ne que ñoom tous leur personnel dañ ko mettre à disposition pour vraiment accompagner les services de santé Euh, pour mën a euh, seen dispositif bi mu mën a mucc ayib euh, li nga xamee ne moom moo jëm si wàllu sécurité également mu nekk lu am solo parce que muy sécurité sanitaire surtout waa service d'hygiène ñoom it jël nañ leur disposition ba li nga xamee ne que moom mooy traitement des domiciles def nañ ko ba pare léegi peut-être euh, lii nga xamee ne moom la def mooy saupoudrage bu ñuy def euh, dans la ville euh, à partir du mercredi 15 nga xamee ne que dañuy saupoudrer dëkk bi pour mën a rendre effectif li nga xamee ne que moom mooy li li ñu waroon a def. beneen bi muy la sécurité avec la police ñoom aussi tout le dispositif dañ ko mettre en œuvre te yit dinañ defar li nga xamee ne que moom mooy plan de circulation. ba nga xam ne avec le comité d'organisation dinañ ko partager pour mën a euh, wax ñi nga xam ne mooy pèlerins yi plan de circulation bi ñu maintenir fii pour mën a faciliter démarche dikk bi mais également gën a mën a sécuriser zone yi euh, gendarmerie également la même chose euh, nga xamee ne ñoom jël nañ le dispositions pour lépp li nga xamee ne que mooy Euh, contrôle routier wala euh, contrôle dispositif yi nga xam ne moom nañuy def ci domicile dignitaire yi ñoom it jël nañ leur disposition pour mën a euh, def loolu sapeur pompier yi ñoom aussi lu ci dem ci grande cuisine hier également sécurisation autour de la mosquée ak biir mosquée bi yëpp ñoom jël na déjà leur disposition donc sur le plan sécuritaire daal tous les services de sécurité de défense et de sécurité maanaam jël nañ seen matuwaay pour mën a euh, satisfaire li nga xame ne mooy besoin bu euh, comité d'organisation euh, si mbirum ndox ak assainissement mbirum ndox moom disposition yi jël nañ ko parce que li nga xamee ne que mooy douze forages yi nga xam ne ñoom ñoo gën a impliqué si màggal gi ñoom ñëpp ils sont fonctionnels et que yeneen disposition dinañ ko jël pour mën a yokk ndox mi maanaam muy ay camion wala muy ay bâche à eau Euh, OFOR euh, jël na euh, encore engagement pour mën a mettre à disposition lépp li nga xamee ne que moom la comité d'organisation bi laajoon pour mën a satisfaire vraiment la demande yeneen yi nga xame ne que mooy entretien yenn yenn kii yi nga xamee ne dañu dem def baisse de devis mais yooyu forage yooyu impliqué wu ñu directement si si mën naa wax ne que màggal bi mais entretien yooyu dinañ ko def pour mën a relever les les baisses de devis de débit également yi nga xam ne ñoom nekk à l'arrêt ñu mën ko réparer dans les meilleurs délais euh, par rapport à l'assainissement moom li nga xam ne moo doon engagement ONAS mettre à disposition des camions euh, ONAS mettre na à disposition cinq camions également pour cinq jours euh, def nañ liggéey bi et liggéey boobu it euh, maire bi mu ngi koy compléter ak camions yi mu mettre à disposition loolu dinañ ko wéyal ba nga xamee ne que besoin yëpp dinañ ko mën a satisfaire euh, beneen bi muy par rapport à l'énergie muy Sénélec euh, bépp li nga xamee ne que mooy engagement Sénélec euh, ñoom déjà jën nañ seen disposition te engagement yi ñu jëndoon vraiment satisfaire nañ ko toujours dama ko fàtte woon sànq si assainissement muy ICG également ñoom aussi ñoo ngi jouer seen partition si mbir mi par rapport au nettoiement ak également Euh, yenn zones yi ñu mën ko di euh, setal euh, beneen kii bi muy lu jëm ci mbiru élevage maanaam li nga xame ne mooy saytu jur gi mais également li nga xamee ne mooy yàpp bi ñu xam moom la ñuy ndawal bi ñuy utiliser ñoom déjà jël nañ leur disposition te dispositif bi à partir de mercredi dañ ko def aussi bien ci dara lii mais également ci euh, kër euh, kilifa yi nga xamee ne que am na yooyu euh, commerce également dina veiller di ñu tuddee bon approvisionnement du marché déjà ñoom contrôle qualité bi déjà commencé nañ ko depuis semaine bi nga xamee ne que moom moo passé dinañ def aussi di ñuy tuddee contrôle des des prix mais également approvisionnement bi marché bi dinañ ci veiller Sonatel moom dina jël na engagement par rapport ak euh, amélioration qualité réseau bi également li nga xamee ne moom la comité bi demandé ñu accompagner ko ci pour euh, vraiment màggal bi mën a jaar dans de d'excellentes conditions euh, mu nekkoon en résumé li nga xamee ne mooy engagement ak disposition yi nga xamee ne moom la service yi jël pour mën a accompagner la comité d'organisation te di gën ñaaxaat aussi les différents pour que vraiment disposition yi ñu gën ko mën a euh, respecter pour vraiment ñu am euh, màggal euh, dans d'excellentes conditions. di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ndax lii ko ne xam na màggal gi ni mu demee ak ni mu toll waaye saa bu jotee lu mel ni day am bii mooy ñetteelu ndaje bu defoon ca mairie ba def benn ci gouvernance tey ñu ñëw fii ci kër Cheikh Abdoul Fatah ngir ñetteel bi nga xam ne mooy xayma. li nga xam ne jotoon nañ ko waxtaane fuñ ci toll loolu itam alhamdulilah sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne moom mooy coordonné loolu wax na ne fi mu yëf yi toll day xel dal na ci bu baax ndax li ëpp lu ñu sàkk woon te lépp nag jëm rek ci waajtaayu màggal gi ngir nit ñi bu ñëwee mën a fekk euh, dal yoo xam ne dal yu waajal lay doon waaye ñëwin wi itam mën a jàppandi ba yi nga xam ne yi moom lañ soxla ci màggal gi te ngóor gi war cee taxaw gouvernement bi war cee taxaw loolu rek la ñu sàkku te loolu wax na ne ñu ngi ci sori bu baax kon ñu ngi sant ci lu weesu woon di am yaakaar ci li nu ñëw jëm ñaan sunu borom kàttan nan nu ba mën koo def ni ko war a defee bis bi nag doon di bis bu am solo boo xam ne dañ ko war di wax sax bis bu set ndax alquranul karim la alquran moom dama jég dama jéglu sax baatu sàppi kenn ñi mu ko ca wax bis bu set ñu jàng fatiha ay yoon ci julli te loolu fàttali la wa dakir fa inna dikra tanfaul muminin zakir in nafaati dikra kon ñu fàttali nag bis bu màgg la di bis bu tedd bis boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala cee teraloon soppeem ba di jaamam ba di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reñaane ko jële ko masjidil haram yóbbu ko masjidil aqsa waaye yéegal ko nag ca déeleem ya mu dem ba fa ko soob mu won ko fa la ko soob jox ko fa la ko soob déey ko fa la ko soob waaye jox ko sëri ca boo xam ne moom na du indaaleel moo tax léegi bi waxtu bi julli jotee ñu ne nañ jooxe waxtu wi ndax ci fàttaliku buñ ko mënoon na wax anniversaire u julli mooy tey te ki tax ñu daje fi muy Cheikh Mahamadul Fadil di di di di di Cheikh na Ahmadul Xadim dafa fonkoon jaamu yàlla ba wax ne lépp lu ngeen may defal bu waxtu wi jotee na ngeen bàyyi loola dem jooxe farata ji misaal yu baree bari am na ci waaye bindal salaatuna fi awalil awqaati def naa ne bay boobu waxoon nañ ko daal dem joxe ji farata kon bis bii ñu jub dug euh, dëgmal si mooy bis bi nga xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala farataale woon waaye Cheikh Mouhamadul Fadil feeñ ci isra al miraaj nag alquran moo na ko nettali ñun ñëpp jàng nañ ko ci alquran waaye Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu moom itam nettali ñu ko ci anam goo xam ne euh, buñ ko ñemee woon wax dañ naan da ngay defee ne kii moom da ko fekke ndax na mu amee la ca xew ñamu romb nañ ko màggale cër yi ko jox na ko borom bi subhaanahu wa taala def lépp danu ko danu ko danu ko waxtu wu ne sural amini maal amini fawqal amini bil asfiyaay qad xaasa faxra min xiina asra bil ismi jahra bil imtiraay qad baata yasri min baadi tuhri mujima bashri fi la xam ne noonu la ko tuddee qad qaddamoohu nga ne day mel na nag ñam doon romb nag duwaajahu naqaay wa saada fihim wa baana anhum wa siina anhum lépp sëriñ bi nettal nañu ko ñun ñëpp di ko jàng kon bis bi dafa tedd am taarix boo xam ne alxuraan da koo indi Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu leeralaat ko muy bisu jullit yëpp nag waaye Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo ci feeñoon ñu di ko ci fàttaliku di ko ci màggal di ko ci ñaanal di ko ci di moom itam doon koo xam ne dafa doonoon nitu ñëpp amul woon li ñuy tudde xejj ak seen nit ku nekk rek yàlla mi ko bind la daan xool ci moom loolu sëriñ bi wax ne waraaxi fii kulli man xalaqa te muy xadis xadisu sallallahu alayhi wa boo xam ne sëriñ bi dañu ko leeral noonu la doon dunde muy bisu ñaan di bisu ziyaara di bisu bernde di bisu jokku mbokk di bisu fedd li kollëre di bisu ñaan ñaanal way dawli di bisu jàng xasaayid yi nga xam ne lépp lu ñu nit ki mën a xalaat ci tudd yàlla ak màggal yàlla ak wéetal yàlla waaye tagg borom bi subhaanahu wa waaye ñaan tagg yonent bi sallallahu alayhi ak julli ci moom ak ñaa lépp sëriñ bi def na ko ci anam goo xam ne jàpp nañ ne mën nañoo jàpp ne keneen lottu na ci kon loolu bis bi dañ cee war a def mooy bis loolu rek moo ko tax a jóg waaye doon bis boo xam ne itam ñëpp dañ ko bokk te ñëpp nangu ne ko bokk ndax am na sax ay réew yoo xam ne bis boobu buñ ko defee ba ci suba sa feet la cay doon Cheikh Ahmadul Moustapha Falilu mi nga xam ne moo ko moo ko moo ko moo ko taxawalal Cheikh Ahmadul Fadil daana am ay ndaw yu mu yebal bitim réew ñuy dem di fa màggali ji bis boobu waaye foofu am na ci réew yoo xam ne réew yi jullit bu ñu fa masaan dem dañuy fekk ne ñoom bis bi buñ mag buñ ko defee ba ca suba sa guddi gi ba ca suba sa feet lay doon kon bis la boo xam ne àdduna bi yëpp ñoo ko bokk ci ci fàttaliku Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moom itam mbiram dafa dugg ci biir biir Cheikh Mouhamadul Fadil li sëriñ bi waxoon ne damaa bëgg damaa seey ci biir Cheikhoul Khadim moom noonu la mel ci kër Cheikh Mouhamadul Fadil ndax gis ngeen bisam bi ni mu duggee ci bis bu bi nga xam ne kon jataay bi ñuy def benn jataay bi la jataayu waajal màggalu Kazu Rajab waaye jataayu ma waajal màggal bisub cheikh Mouhamadul Amin cheikh Abdoul Fatah wax ne kon ci ndigalul cheikh Abul Baraka ak cheikh Ahmadul Bachir ak rakkam cheikh Ahmadou Mourtada ak mboolem njabootu kër gi mi ngi soññiwaat mbooloo mi yëpp di wax ne bis bi ñëpp ko bokk cheikh Mouhamadoul Fadil ñëpp ko bokk kon na ñëpp ñëw ànd ak nun fàttaliku bis bi ñaan ci sargalante ci dundal bis bi dundal mm, julli dundal taraanga jooju nga xam ne moom la ci borom subhaanahu wa taala defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye dundal ci bokk na ko Cheikh Amadou Fadel baaxoo a def waaye itam ñu xam ne lépp lu fi waay ñaa indi ci aajo joo xam ne da nga ko bëgg ñaan ko sa borom jaarale ko Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Fadel na nga am yaakaar bu wér ne sunu borom dana ko defal jëpp tawat yoo xam ne nit indaale ko na fi itam na rafet njort am yaakaar bu wér ne sunu borom dana ko ko teggil kon ni ko sunu mbokk mu baax ma daan wax kuy ñëw bagaan goo am lu mu rëy rëy na nga ko indi te xam ne duy ko bu niroo bu niroo lu xaw a bari itam lu tuuti la ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala lu tuuti la ci mayam yi te li mu yor bindeef yi rek moo tax moo ñoom la ko xaroo te ku ko laaj la bëgg jaam buur la boo xam ne ku ko lu ko jaam gën a laaj loola moom mooy lim gën a bëgg ndax mooy jaamu ko mooy wéetal ko xam ne moom moo am mooy mën a maye te du jeexal dara te li mu yor bindeef yi rek ñoo ko moom ñu koy yëgal itam ni ko sëriñ bi waxee woon mboolem yoonu murit mboolem njabootuk sëriñ bi mboolem jullit yi waaye mboolem Sénégal yi di ci séntu ñëpp ñi nga xam ne itam yàlla dafa dogal seeni kër jege ak jumaa ji daaw amoon na ay jafe-jafe ngir buñ bëggee dugg si mu xaw a jafe loolu itam ñu ngi leen ciy jégalu di leen xamal ne nag ñoom ñook ñoom ñoo yem ci màggal gi wala ñoom sax ñooñ cëppale ndax Cheikh Amadou Fadil Cheikh Amadou Fadil ñëpp la waaye waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu sécurité ci ndigalu préfet ak sous préfet ñu ne dañ ci bàyyi xel bu baax a baax danañ def plan de circulation boo xam ne danañ ko waxtaane danañ xool itam daal nu ñu mën a amee saa bu ñu bëggee dugg seen kër mën a dugg bu ñu bëggee génn mën a génn képp ku bëgg ñëw seet si leen siyaare si leen itam wala nga mën faa ñëw màggal si fa nga mën faa yegg si nu xam ne nag dayoo màggal gi moo tax ñoom itam li ñu def bëgg rek ndal ñëw gi ak dellu gi ak itam kaaraange gi loolu rek moo tax ñu di koy def te noonu duñ leen jàngal liggéey waaye mën nañ leen a wax nag loo xam ne day xew ci biir gi ngir ñu xool nuñ mën a saafara saafara loolu loolu waxtaan nañ ci bu baax a baax kon ñu ngi ko yëgal mboolem ñi nga xam ne dañoo xaw a jege dëkk bi di ma masawu nag ñëpp ci xat-xat yi waaye ni ma ko waxee bari na ñuy màggal si ñoo xam ne xamuñu kenn ci njabootu Cheikh Amadou Fadal ñuy wax waaye dañuy ñëw ngir yàlla ak Cheikh Amadou Fadal am na ci ñoo xam ne ca jumaa ji la ñuy dem fanaan fa ba xëy dellu am na fi ñoo xam ne seen kër sëriñ la dem dali fa wala kër seeni xarit seen këri bokk bari na kilifa yoo xam ne niñ daan def di ziarante ak njabootu Cheikh Amadou Fadal gi ñu mën a tudd mënatuñ ko ndax léegi bisu màggal dañ ci amu gan waaye nag loola moo gënal borom màggal buñ demoon ba kenn dutu mën a génn sa kër ngir gan ñu fay dal jàpp nañ ne bu boobaa nag ñi ngi tàmbalee jëm moom fa bëgg-bëggam am ndax dafa ma sa wax ne dama am dama bëgg lépp lu ma am ma bokkook ñëpp kon loolu ñu ngi ci ñu ngi koy gis bu baax a baax ñoom kon ku ne xam ne tax na ba mënoo yegsi ci njaboot gi it bi xam na ne sant na la gërëm na te loolu la ñu ñaan di ñaan mu yokk di ñaan daal ñëpp ñëw fekk fi jàmm ak salaam niñ ko doon waxee itam ci ñi nga xam ne ñooy indi ñoo indi nit ñi ñu gën a bàyyi xel bu baax ndax xam na ne doomu aadama lam nekk ba kanam ne ca du ko foyee waaye fàttali dafa baax ni ma ko waxoon ci njëlbeen bi doole bàyyi xel yoon wi doole def ndànk bañ a njëkkante ku sonn itam bëgg a gëmmentu war nelaw nga nga nelaw bu fekkee da ngaa bëgg ko la aw itam ka lay ngay jox daamar ji mu di ko mu di ko wammat nga doon mu doon ko ko xarañe ku ko man waaye daamar ji ci boppam itam ñu saytu ko ba xool ne am na kàttanuk mën a mën a mën a ñëw te lu ca war def ko ci ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu si jàmm te ni ma ko waxee lépp luñ fi ñaan sunu borom nangu ko ci barkeb Cheikh Amadou Fadil ci barkeb Cheikh Al Khadim di sant itam taskati xibaar yi ndax ni ma ko waxee màggal gi ñëpp dañ ko bokk ñi mën a ñëw Touba dañuy ñëw ñi mënta ñëw it dañuy toog fa ñu toog di ko dund ak noonu ci biir réew mi ak ci bitim réew mi kon loolu itam ñu ngi leen di ñaan ñu gën koo yaatal rawatina nag njàngum alquran mi sëriñ bi soññee na ci bu baax ak ñaan yi njàngum xasaayid mi dikrullah istixfar salaatu ala nabi lépp a ngi ci biir xasida yi waaye luñ ci mën a def rek doyut ku xam nañ ne liñ ci def kenn xamul nu mu toll waaye ñaan moom du doy ndax sallallahu alayhi wa sallam saa buñ ko tuddee dañ ko war a waaye li ñu fiy jàng ci alquranul karim boobaak léegi bu fekkoon dañ naan kii dañ daan tubaarkàlla waaye nag nañ ko gën a yokk te yéene ko sëriñ bi ku ko man defal ko boppam koo xam ne itam lottu na ci mu wut ñu ko man mu teral leen ñu def ko tam yéene ko Cheikh Mamadou Fadel ñaanal laale ci mboolem njabootam gi nga xam ne dawlu nañ ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi nekk sunu borom bàyyi leen fi tamay leen wér tuk Cheikhul Khadim mooy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bindeef yëpp kon ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla àggale leen ci bis bi ak jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu